Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah waa mbooloo bi ñoo ngi nuyuwaat ñi ñu topp semaine bële passé xam nañ ne ñi ngi doon def waxtaan ci jigéen ji sayte yàlla may ko doom yu wax ci lu bari ci lañ gis ne bokk na yi koy waral ak waa waxtaan def ci defoon defoon ci waxtaan waxtaan wu yaatu ma digoon leen na nag suñu waxtaanee jigéen ñi ak ñu waxtaanee góor ñi ndax ñàkk am doom ci sëy yenn saa yi jafe-jafe yi du nekk ci ku jigéen ki waaye ci ku góor ki lay nekk waaw parce naa leen ne leen yenn saa yi jafe bi ci wàllu couple bi la mooy góor ak jigéen mooy mu ne lépp kenn ku ne mën nga am jafe-jafe yenn saa yi yenn saa yi ci jigéen ji dong la waaye yenn saa yi nag ci góor gi la góor mën na am soxna suñ borom nattoo ko mu am jafe-jafe am doom waaw lan moo koy waral dinañ ci xuus ci biir waxtaan wi eh, gën koo leeral incha allah eh, mbokk yi boo demee ci wàllu médecine moom lañu ki sëy te amoo doom loolu la ñuy tuddee infertilité waaw maanaam dañ koy différencier ak lu ñu tuddee stérilité du benn stérilité mooy ku mën a lu am doom kii nag infertilité mooy ki nga xam ne am ngay gàllankoor rek ci wàllu am doom boo fajoo yàlla mën na la defal suutara ba nga ba am ko ni jigéen di amee jafe-jafe jooju nag góor da koy am waa góor da koy am waa góor mën na sax yaakaar ne ne wala mu yëg na ne xëy na dara manqué wu ko fekk am na jafe-jafe ju ndaw ju nekk ci moom waaw lu mu yëgul loolu mooy gàllankooram te li ci ëpp dina nekk ci man yoom gàllankoor gi yenn saa li ci ci man yu ba lay nekk bu ko defee mën naa am soxna di sëy du am doom moo tax ma waxoon keroog su jafe-jafe ñàkk am doom amee ci sëy jigéen ki bu demee saytu yaramam ku góor gi dafa war a dem maanaam buñ gisul dara ci ku jigéen ki ku góor gi dafa war a dem wala sax ñoom ñaar ñëpp dañuy ànd parce que yenn saa yi problème bi ci ñoom ñaar ñëpp la waaye li ci yenn saa ci yenn kaay ci ku góor gi la waaw góor mën na am soxna di sëy fekk am nay gàllankoor yu nekk ci moom moom yu mu yëgul kon nag foog mu dem defi yenn examen médicaux yi nga xam ne moom moo koy génnee ñu ne ko sa gàllankoor gàllankoorkat lii la waaw boobu ba yaa ngi sëy waaye sa soxna si mënul am doom di soxna si amul jafe-jafe kon nag jafe-jafe bi ci yow la te gàllankoor gi lii la damay wax ne toujours rek bu ñu xamee li sa jafe-jafe fan la nekk rek faj la dafay yomb. bu ko defee li nga xam ne dina waral góor xëy na di sëy te am doom jafe-jafe ko yooyu ñu tuddee hormone yenn saa yi fa la jafe-jafe bi nekk te hormone yi dafa am hormone bu siiw bu ñu naan testostérone. hormone boobu jigéen amu góor ñu góor moo ko am hormone góor la hormone boobu ku la ko ëppale ci góor ñi moo la gën a niroo góor waaw testostérone benn waaye nee na baat bi sax daa diis testostérone mooy wan ne mbiru góor dëgg la ma ne ko wax nga dëgg de hormone boobu ku la ko ëppale moo la gën a niroo góor hormone boobu moo tax góor ak jigéen duñ niroo moo tax góor di am sikkin di am kawaru dënd góor di musclé waaw am ay muscle waaw moo tax góor bu waxee baat bi diis nga xam ne kii góor la moo tax góor tamit di am ndox mu doy moo tax góor di mën a euh, sëy nekk ko viril waaw ku mën boppam ci wàllu sëy day fekk ni ne hormone boobu da ko da nga koo bërile te góor ñi kenn ku ne dafa am la ci àll la ci yàlla sedd ki la ko ëppalee ki la ko ëppale moo la gën a niru góor waaw ki ko ëppale moo la gën a niru góor ci ay ci nim bindoog ci màndargaam ak ci ni muy nekk soxnaam waaw dana feeñ ba sa baat comme ni wala ko waxee boo waxee ñu xam ne yow ah kii de liñ naan kii vrai góor la waaw ko ëppale daal moo la gën a niru góor hormone boobu nag yenn saa yi dina am ñi nga xam ne dañ koy manqué su manqué ba jégg dayo nag mun naa waral nga am soxna di sëy ak moom yàlla def xëy na nga am ak moom doom day jafe te jafe-jafe bi ci yow la nekk waaye du ci soxna si du ci soxna si kon nag lu am solo la boobu boobu hormone su dee néewle nga ko rek mën naa indi gàllankoor ci wàllu am doom leneen li nga xam ne mën na waral góor tamit ñàkk am doom yenn saa yi ci misaal canal yooyu nga xam ne fa la ndox mi di jaar boo boo booy sëy ba ba war a yegg noonu canal yi mooy mi ne lu bloqué dafa fatt kooku nag gàllankoor la waaw te li ci ëpp ay feebaru sëy yi ñuy tuddee IST maladie infection sexuellement transmissible jàngoro xeetu jàngoro yi nga xam ne dana dal nit ci wàllu sëy moo koy moo moo koy waral yenn saa yi problème boobu la ñenn ñi si góor ñi liñ seen problème mooy seeni ndox moo farul waaw kon nag far bi am na ci njëriñ ndox mi warul oyof oyof toll ñenn ñi seeni i njaan yi nekk ci ndox ñi ñu ñu ñu ñoo xaw sawaruñ waaw te wallax njaan lu sawar la war a doon war a yëngu pour mun a yegg ci soxna si waaw waaw boo ko defee rek ñenn ñi sax wallax njaan yi du du ñàkk du ñàkk far waaye niñ bindoo moo baaxul xam naa danañ ko leeral ci ci ci biir wax bi ni ni ni nga xam ne wallax njaan yi niñ bindoo daal moom moo desee mucc ayib waaw am na am na déformation yi ci nekk yi nga xam ne wa mën na waral pour mu yegg ci soxna si ba taseeg li jógee ci soxna si tuddee ñu tuddee ko obil pour doom sos loolu dafay jafe parce que mbind mi ni mu bindoo moom ma baaxul xam naa dinañ ko gën a leeral incha allah ci biir waxtaan bi kon nag nga gis ne lii waral góor bi sëy te du am doom lu lu yaatu lay doon mbir yu bari mën na ko waral ci yi koy waral tamit am na lu ñuy tuddee oligospermie waaw oligospermie mooy man yu bi nga xam ne la ca nekk ci wallax njaan bariwul waaw maanaam boo sëyee ba yegg mën ngaa sax bari ndox muy ñëw bu jógee ci yow di ñëw waaye ndox ma li ci am solo yenn saa yi du bari waaye bi la ciy nekk kon du quantité ba waaye qualité ba la ciy nekk la ciy nekk ci ferñeent yooyu ñu tuddi walax njaan doomu walax njaan yooyu ñoom ñoo dul bëri waaw te bu néewee rek mën na indi jafe-jafe pour nga am doom waaw lu bëri waaw te ñàkk bëri ñàkk bëri boobu nag daf ko dafay waral day waral loolu parce que su dee su dee li ngay génnee ci walax njaan dafa néew quinze millions fukki million ak juróom ci millilitre ci millilitre ndox moomu di génn ci yow rek mën nga am mën nga am jafe-jafe am doom nag gis nga ne góor luy génn ci moom wala njaan dafa a bëri xam nga 15 million bëri na buñ la nee ndox moomu di génn rek lum néew néew yenn saay 15 millions wala njaan ci nekk da nga naan waaw loolu nu mën a nekkee waaye nag mbiru borom bi la waaw. programme am la nit xamu ko. waaye wallax njàndal dafay bëri lool ci biir ndox ma yenn saa yi sa nga jàpp ne am nga ci lu bari lu doy fekk la ci am doyul pour nga am doom wala sa chance su am doom daal day néew lool day néew lool. Euh, am na am na ñi nga xam ne nag seen jafe-jafe mooy ci loolu ñuy tuddee oligospermie te ma koy leeral mooy man yi nga xam ne la ci nekk ci wallax njaan doyul am na ñi nga xam ne euh, dafa dañ dañ ko oyofle lool waaw maanaam lañ liñ ci am dafa oyof lool mooy ñi nga xam ne seen man wi la ca nekk ci walax jaan diggante quatorze millions ak cinq millions la waaw ñooñu ñoom tamit duñ seen chance am doom dafay néew kooku la ñuy wax oligos oligospermie léger am na bu mod am na bu modéré li ñu ne oligospermie modéré mooy ki nga xam ne diggante juróomi million ak benn million ñoo ci nekk ci millilitre millilitre wala xanjaan bu ne waaw kooku tamit souvent boo seetloo eh, jafe-jafe am doom tamit mën na koo mën na ko am am yi nga xam ne biñ ci am moo gën a métti sax waaw lañ am ci doom walax njaan ci millilitre ndox buy génne si ñoom matul sax eh, matul sax un million waaw ñoom tamit boo seetee boo seetloo ñenn ci ñoom dañuy xaw a am jafe-jafe ci am doom waaw kon nag gis nga ne lii lii bokk na ci lii tere góor am euh, am doom mooy man wi bi nga xam ne la ca nekk ci ferñeent mooy doom yi wallax njaan yooyu bariwuñ dañoo néew euh, leneen li nga xam ne mën na tere góor wala góor mën na mën na waral góor am jafe-jafe pour am doom mooy ki nga xam ne gis nga doomi wallax njaan yooyu nekk ci man ñoom dañooy mel ni lu sonn waaw dañoo sonn moom lañu tuddee asthénospermie ñi amee jafe-jafe boobu asthénospermie mi ngi jotee mi ngi jógee ci baat bi ñu tuddee asthénie asteni moom la ñuy moom lañ moom mooy coono coono coono waaw ci wàllu médecine waaw euh, ki nga xam ne ay doomu walax njaam dañoo sonn wala mel ni lu tayal waaw ah, parce que doomi walax njaam yooyu di nekk ci man bi génnee ci góor kon danga gis ci ne dañuy bari dañoo bari mandarga ni ñuy ñëwee am na ñi nga xam ne yiñ ci yor dañu dañoo tayal wala dañuy ñëw rek mel ni lu sonn waaw ah, ki nga xam ne nag da ngaa war a fay pour dem jàll fa nga war a dem bu dee da ngaa sonn doo ko def bu dee da ngaa tayal doo ko def te te liquide biy jógee ci góor mooy manu bi doomi walax njaay dañ ca war a féey pour dem ci ku jigéen ki lu mu bon jigéen ji jël ci benn walla ñaar suñ mënu suñ suñ sonnee nag ma ni lu tayal loolu loolu du sotti moo tax daanaka fa la ñuy yem waaw fa ñuy yem du sotti parce que duñ mën a dem parce que dañoo dañoo sonn kon nag loolu tamit dina waral góor am soxna te am doom tëkku waaw loolu tamit bokk na ci li koy waral ah, leneen li nga xam ne mën na waral it góor euh, tële am doom ba léegi maa ngi ci euh, man yu góor ak yi ciy nekk yooyu may tuddee walax mooy góor gi nga xam ne dina sëy ba yegg man yooyu dina ñëw waaye man yooyu daanaka la ca nekk ci doomi walax njaan yooyu baaxuñu yenn yi dañoo ñëw daanaka indiwaale wuñ bopp ko xam nga daanaka faatul waaw parce que ko lu ko amul bopp moom doo dund yenn yi moom dañoo ñëw daanaka indiwaale wuñ génn waaw génn génn googu génn googu mooy tax ñu mën a fay duñ ko am kon nag danaan làpp benn place rek du mën a fay pour dem ca soxna sa ba li xew war a xew waaw kon nag kooku gis nga ne bokk na ci nga xam ne ah dina indi jafe-jafe waaw ndax bu mun bu bu ndaalul bopp moom mooy tekki dee na rek kooku moom du mën dara su dee genn genn la manqué mooy tekki ne du mën a fay pour jàll ci soxna si ba taseeg loolu soxna si di génnee ñu tuddee ko ovule la ca war a xew xew ci doom doom doom doom sosu ah, kon nag yenn saa yi ah, góor góor ñi dinañ amee jafe-jafe boobu mooy waral. Euh, duñu duñu mën a am doom walla boog duñu am doom ndax lu ñuy faj la buñ ko fajee rek euh, yàlla mën na ci def sutura ba euh, loolu saafaraw beneen gàllankoor bu mën a tere góor am doom mooy li ñuy tuddee azoospermie boobu nag moo ci gën a yéeme moom mooy yow am nga màndiyu waaw mun nga ci am sax lu doy moo tax gis nga yenn saay góor ne la man dama bëgg garab gu may jox ndox mu bari ndox mu bëri bon kenn wax ne amul solo waaye ndox mu bari li ko ëpp li ko gën daal mooy ndox mu riche waaw nga xam ne yi ci nekk ñent yooyu doomu walxanjaan yooyu am na ci ba doy te am na ci yu baax yenn saa yi ne góor am ndox mu bari ndox mi fekk zéro la zéro zéro zéro ci doomu walax njaan loolu la ñuy wax azospermie mooy góor gi nga xam ne man ñoom amul benn walax njaan kooku nag moo gën a compliqué waaw ndax ñee kii da nga am nga benn am nga ci tuuti mais bëriwul kii am nga ci waaye dafa tayal kii am nga ci waaye dafa am déformation bu ci nekk waaye bu dee ci lii ñu tuddee azoospermie bi mooy ku góor ki am na man yu bu doy waaye man yu bi nag amul dara ci wallax njaan amul dara ci wallax ndax dara dara dara dara kooku nag boo xoolee cas bu xaw a sévère la bu bu compliqué la te yéen am na góor ñi nga xam ne jafe-jafe boobu lañu am waaw moo tax yenn saa yi nga dem xool ñu xool la ne la loolu nga amee nga war ko faj nag faj bu xaw a yàgg wala ñu wax la ñu wax la lële nga amee ci yi nga xam ne lim naa ko boobu boobaa tamit nga faju rek waaw waaye daal loolu bokk na ci ay gàllankoor yi nga xam ne dina waral góor tamit eh, am doom xaw koo jafe kon nag gis nga ne leer na ne li ñu tuddee infertilité mooy góor gu amee jafe-jafe ci wàllu am doom yenn saay ci ndoxam la kon nag góor gi bu mu jàpp ne li mu yor moom gis na ne mi ngi fonctionné moom gis na loolu rek am na sax moom vraiment mandarga góor yëpp ngi ci moom daje na ci moom mu fëgg dëndam ne man aw ma jafe-jafe kon soxna si la déedéet yenn saa yi da nga dem xool parce que yow ci sa mbind mën nga macha allah am nekk ko am kattan dara manqué wu la mandarga góor yëpp mu ngi ci yow waaye nag ndox ma baaxul jafe-jafe bi ndox la fekk say jafe-jafe ci wàllu ndox mi la waaw li ci ëpp ci góor ñi ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe pour wàllu am doom mooy dañoo am jafe-jafe ci seen wàllu ndox ndox ma moom moo dese baax qualité ndox ma baaxul kon te ngeen gis ne qualité ndox mu bu baaxul euh, mën na indi ay jafe-jafe ci wàllu njaboot waaw mën nga bañ a doon góor gu njaboot waaw ndax loolu daf ci am solo daf ci am solo bu ko defee mbokk yi am na li nga xam ne foog ñu taxaw fi parce que dañ doon waxtaanee infertilité mooy góor gu amul doom am na yeneen yi nga xam ne mën naa bañ a tere góor am doom mën nga koy am nag am doom mën na laa dal nga ngay am doom waaye gàllankoor la bu mën a jur loolu ëllëg kon nag loolu tamit foog ñu boole ko ci waxtaan bi ñu taxaw ci li ci njëkk mooy li góor ñi di gën a jàmbat léegi mooy li ñu tuddee éjaculation précoce am nañu am nañu am nañu koy tuddee éjaculation prématurée mais nee naa yi du benn éjaculation prématurée mooy góor gi nga xam ne balaa ngaa yéeg sax yegg nga waaw ah, précoce nag moom danga yéeg waaye doo ko yàgg waaw ah, moo tax ñi ñi naan benn la nañ nañ ci def attention du benn waaw ah, du benn te loolu dafa bari jamono ji waaw bu njëkk ba sax nit ku magee moo la koy jàmbat waaye léegi gis nga ne ndaw yi daanaka néew na ko ko ci jàmbatu li ko li ko waral nag bëri na xam naa dinañ ci ñëw xëy na ci biir waxtaan bi kenn koo kenn cee taxaw yenn saa yi tamit nit laaj la waaw waaw ñaata temps la dix seconde la wala trois minutes la wala cinq minutes la déedéet problème bi du temps gis nga problème bi bu dee sëy yaa ngi sëy jigéen rek te moom lam soxla ci sëy bi moom amu ko ci rek daanaka yow am nga jafe-jafe parce que booy sëy ak jigéen lam soxla ci sëy bi da ko war a am yow da ngaa da nga war a jot sa wàll ba mu doy sëkk jot wàllam ba mu doy sëkk su dul loolu rek bul sax jéem a laaj ñaata minute ngay sëyeeg waaw parce que na sax ku ma ci laaj ndeysaan jamono ne ma waaw ma dégg ne juróomi minute kenn war ko weesu ma ne ko juróomi minute ci bëggal jigéen de moom naa wax juróomi minute mënoo ci mënoo ci bëggal jigéen ëpp wax ah, kon nag li ci am solo mooy ki nga nekkal mu yëg boppam nga yëg sa bopp su amee rek jafe-jafe du am waaye bu amul rek jàppal ne li ñu tuddee éjaculation précoce mooy gaaw jot sa bopp ci sëy yow yaa ngi ci ñi jafe-jafe boobu ci nga bokk. gaaw a jot sa bopp ci sëy nag daf ci am ñaar rek waaw doon ki nga xam ne noonu la musamel mel waaw waaw mooy ki nga xam ne moom la noonu la musa moom musul musul mën a yàgg ci jigéen ci soxnaam waaw am na ki nga xam ne dakaa dab kon nag gis nga ne ñaar yi duñ benn ki nga xam ne moom ba mu ràññee ba léegi ñu jox ko soxna ba léegi jafe-jafe boobu lay dudd ki nga xam ne loolu da ko dab te moo doon jafe-jafe bi nga xam ne góor ñu bari duñ ko wax dañ koy nëbbu dañuy am kersa wax ko te li ñu naan jàngoro dañ koy weer moo ci nekk waaw foog ñu waxtaane ko ndax xeetu waxtaan yi xëy na kersan si mais buñ ko dul wax rek yee ci nit ñi rek musiba la waaw ndax éjaculation précoce mooy gaaw a jot sa bopp ci sëy bokk na ci yi nga xam ne mooy gàllankoor yu gën a siiw wala jafe-jafe yi gën a siiw ciy indi problème ci sëy waaw da yenn saa nga dem gis jëkkër ak jabar ñu mel ni ku meroon nii wala soxna si mel ni ku mer nga naan ko lu la lu la métteeg yooyu waaw du la ko mën a wax waaye daf cee bokk cee bokk waaw mais nag du feebar moom duñ ko boole ci feebar yi jafe-jafe la ju la dab wala ju mës a nekk ci yow waaye en tant que duñ ko tuddee maladie déedéet gàllankoor la waaye gàllankoor guñ mën a guñ mën a guñ mën a saafara la waaw guñ mën a saafara la waaw guñ mën a saafara te bokk na ci jafe-jafe yi muy indi mooy ni ma la ko waxee jafe-jafe diggante surtout sax soxna mën na la cee am lum la guuxal dencal la mer parce que li muy soxla joxoo ko ko buñ la ko waxee buñ la ko ko loolu daf ci am waaw ak ñàkk déggoo nekk seen digganteeg waaw daanaka daal bokk na ci gàllankoor yu gën a mag yi nga xam ne dina am ci diggante ay woy dencante waaw lan moo waral góor di gaaw a jot boppam ci sëy waaw jox nañ la soxla soxna simila ak saala rek yow pare nga ci su ngeen di waxtaan daal du yàgg bokk na ci koy waral waral mooy bës bu ne rek ceebu jën waaw ci misaal damay misaal rek waaw bés bu ne ceebu jën xam nga koo koy koo koy koo koy defal dana xëy mu sàppi dana bëgg na nga changé def suppu kànja def yeneen gis nga loolu lañuy ñuy tuddee routine ci tubaab mooy benn anam rek waaw benn anam rek ngeen di ngeen di ngeen di waxtaanee te waxtaan am na façon façon yu bari te yu bari yu bari kenn terewu la ko bu ko tere sa bopp mën na nekk tamit ci soxna si mu am jafe-jafe pour yooyu ngay soxla du ko du la ko defal maanaam lenn rek lenn rek la tàmm ngeen tamu te lépp luñ la terewul te indiwul jafe-jafe ci sàllu sa wàllu yaram bu ko tere sa bopp am na ñi nga xam ne li koy waral mooy liñ naan dafa benn organe bu benn cër bu ñu tuddee urètre foofu mooy jafe-jafe moo waral doo yàgg ci ci ci jigéen am na ñi nga xam ne li tax ñuy gaaw a jot seen bopp gis nga boo xoolee awra góor ci cat bi waaw góor gu bu dugg néegu góor xam nga boo boo demee bu wér gis ne loolu di feeñ cat googu di feeñ boobu moo sensible waaw cat boobu moo mënul muñ dara waaw moom daal mi ngi noonu waaw cat boobu moo sensible loolu nag jafe-jafe bu yéeme la waaw moo tax booy booy kii ci ndaw si rek pare nga ci parce que foofu moo sensible sensible ba jéggi dayo moo mel ni daal moom mënul mooñ dara waaw kooku rek bokk na ci yi nga xam ne dina waral góor yi dina waral góor di gaaw a jot boppam ci sëy leneen li nga xam ne dina waral góor di gaaw a jot boppam ci sëy mooy nga am lu la métti mel ni xeetu tiitaange sax bu nekk ci yow di la dikkal wala yooyu ñu tudde stress waaw mooy boobu bu tëju parce que loolu dafa àndal ak sëy boo amee jafe-jafe yooyu da ngay pour nga gaaw jot sa bopp moom dafa yomb wala nga sonn sëy ak coono àndul sëy ak loolu boobaa tamit doo fa yàgg de da sonn waaw bokk na ci li koy waral mooy réeroo ci diggante way way dencante yi waaw man daal am ngeen jafe-jafe mel ni jubóowu leen waaw kooku nag problème société la te yenn saa yi yenn ay way dencante dañuy dund lu mel noonu te bokk na ci li nga xam ne mën na gàllankoor góor ba mu gaaw a jot boppam ci ci ci sëy kon nag ki nga xam ne danga ngaa jot sa bopp ci sëy suñ ci doon wut ay saafara dañ la naan léegi ci njëkk mooy waxtaan waaw yow soxna si nag boobaa métti na waaye jàppaleel sa borom kër waa moo tax ñuy nettali benn histoire ñu ne seen soxna dafa ànd ak borom këram sa borom kër gi loolu jafe-jafe boobu la amee ñu dem ci docteur bi docteur bi ne ko sëñ bi yow daal nga ne méttit bi la dal mooy danga nga gaaw jot sa bopp wala boog soxna si nee na méttit bi la dal li la métti mooy da nga gaaw jot sa bopp ci sëy loolu la wax waa ji waa ji ne ko déedéet man dara métti ma lu soxna si la métti métti bi nekkul ci man waaye ci soxna si la waaw boo seetloo fa muy waxee xam naa bu ñamee dégg-dégg rek dinañ xam ne li mu wax xaw na nekk dëgg ndax la ciy metti la ci ëpp ci soxna si la parce que gis nga yow boo sëyee ba yegg yow daanaka jot nga sa bopp bànneexu nga mais soxna si bànneexuwul waaw yow bànneexu nga soxna si bànneexuwul kooku nag métti kooku nag méttit bi ci moom la la ëppee bu boobaa yow nag méttit bi nekk ci yow xëy na boo toogee mooy jafe-jafe ni man de góor la maa ngi jox nañ ma soxna la ci war defuma ko ah loolu tamit ah mën na la indil tamit loolu la ñu tuddee frustration nga am lu lu métti lool lool lool lool waaw te wax dëgg yàlla gaaw jot sa bopp ci say néew nañu ko jàmbatul néew nañu ko jàmbatul ñu ñuy jël ci suuf diñu ko diñu ko jàmbat mënuñu leen jeexal bés bu ne nit nit woo la wax la lu mel noonu dafa bari nag ci société bi waaw dafa bëri dafa bëri te nag gàllankoor gu yéeme la ci wàllu ay way dencante waaw couple yu bari loolu tas na leen wala loolu réeroo nekk na seen diggante fekk ci loolu la jóge leneen li nga xam ne dina waral tamit bokkoon ci xeetu tëli yi tëlay góor mooy lu ñuy tuddee problème mu érection wala trouble de l'érection ma tekki ko mooy ki nga góor gi nga xam ne lim lim lim lim yor jafe-jafe bi ci nekk mooy du du jug nu mu waree parce pour nga jëriñoo ko foog mu jug waaw du jug nu mu waree kooku tamit gàllankoor la pour nga bégal sa soxna it gàllankoor la ndax mbir mi moo dul jug. waaw te bu jugul du mën a liggéey li nga li nga soxla mu liggéey la ko li koy waral nag yenn saa yi ci at la at ay at maanaam boo demee ba jëm mag nag waaw loolu moom wax dëgg yàlla ni nga meloon ba ngay nekk ndaw doo ko mel waaye nag am na mag ñi nga xam ne maam fayewuñ seen bopp ba mën nañ toog lu yàgg duñu am jafe-jafe boobu waaw am na waaye daal bokk na ci mage lool bokk na ci li koy waral ndax bu boobaa Euh, tissu yi maanaam canal yooyu nga xam ne mooy niroog ay rakkol yu ndaw ñoom ñooy dem ba commencé mel ni lu bàyyi par rapport ak ki nga xam ne ndaw la bokk na ci yi koy waral nag mooy ñi ñiy naan sàngara ñoom tamit dañuy amee jafe-jafe boobu wala tuxkatu cigarette yi wala ñi amee jàngoro jabet yenn saa tamit ñoom gàllankoor boobu dañ koy amee waaw a bu dul jub nu mu waree ak wala ñi tàmm jël ay garabu tubaab bokkoon la ci yenn garabu tubaab yi dañuy joxe jafe-jafe boobu surtout garabu tubaab yi nga xam ne dañuy dañ nan dañuy faj wàllu tension yooyu ñu tuddee les bêta xeetu garab yooyu yooyu gis nañ ne bokk na ci li waral góor am jafe-jafe awram jug nu mu waree waaw ah, kooku nag dañ ko war a wax ci kaw nit ñi bàyyi ci xel waaw ah, garabu tubaab yi bokk na am dañuy joxe jafe-jafe bu mel noonu waaw yeneen leneen li nga xam ne dina waral tamit euh, euh, góor am jafe-jafe am jóg nu mu waree mooy bu ñu amee jàngoroy xol wala ñu amee jàngoroy neer yenn saa yi mën nañu amee jafe-jafe boobu wala ñi manqué le hormone boobu ma doon wax sànq di la ko tekkil noonu ne moom mooy hormone góor mooy testostérone waaw ñi ko bërilewul ñoom tamit mën nañu am jafe-jafe boobu ko la ñuy amee jàngoroy prostate cër boobu ñuy wax prostate te yenn saa yi am na jafe-jafe bu yéeme bu koy dal dañu naan cancer de la prostate ñi ko am tamit dañuy am jafe-jafe yooyu mel noonu wala ñi nga xam ne jàngoro ji ñu amee ci seen la nekk ñoom tamit mën nañu am gàllankoor bu mel noonu waaw. wala ñi nga xam ne dañoo mel ni ku jànnaxee mel ni seen xel nekk fi waaw ñu xaw a stressé comme ni ma ko doon waxee sànq. ñoom te mun nañu am jafe-jafe boobu wala ñi nga xam ne ay jafe-jafe àdduna moo leen dal lu mel ni nga doon liggéey xëy liggéeyatoo mu dem ba jural néew kattan ba sa awra du jug waaw wala yenn jafe-jafe yi nga xam ne nattu la rek yu dal nit ki ci àddunaam nga yàqule dara wala nit ku jege faatu yooyu nga koy misère di ko misère mën na waral nag góor tamit awraam pour mu jug du du yomb leneen li nga xam ne mën na waral tamit euh, wala boog gàllankoor la ci sëy ci góor mooy li ñu tuddee baisse de la libido mooy lan mooy góor gi nga xam ne moom jafe-jafeem du gaaw du waxuma sa gaaw a wala awra dul jóg xelam moo nekk ci sëy kooku nag jafe-jafe la parce que góor normalement sa xel war na nekk ci ci sëy surtout boo nekkee sa soxna waaw dëkk ak jongom mu mel ni mu war a mel xel sa xel du nekk ci moom musiba la kon nag kooku tamit jafe-jafe la waaw loolu nag lu koy li ëpp ci ci ci yuur gi lay jóge stress bi ma doon wax dana ko tegee coono dana ko tegee waaye jafe-jafe nag ci couple bi waaw ngeen réeroo waaw jëkkër jabar yu xiiroog ngaay du na dem ba mën na dal ku góor gi mën na dal ku jigéen gi kenn ku ne mën nga toog sa xel du dem ci keneen ki waaw ba daanaka doo ko yittewoo waaw da nga nekk ak sa soxna doo ko yittewoo fekk da ngeen amee jafe-jafe te loolu nag moom tamit wax dëgg yàlla <laughs> bokk na ci gàllankoor yu gën a mën a sonal góor comme que góor ñi la ñuy waxtaanee tey waaw nekk ak jigéen doo ko yittewoo waaw doo ko yittewoo bu guddee nga mu tëdd féete càmmoñ nga féete ndeyjoor wala mu féete ndeyjoor nga féete càmmoñ kenn ku ne du mooy sa moroom waaw sa xel moo ci ba nekk ci moom loolu nag problème la waaw tey mën nga sonn. wala nga xaw a stressé tey waaye bu dee da cee dëkk rek jafe-jafe la. waaw mbokk li nga xam ne toujours ñun bu ñuy waxtaan dañ koy dugal ci waxtaan wi mooy wàllu xew lu lekk lekk bu baax gis nga bokk na ci gàllankoor ci sëy yenn góor ñi lekk bu bon la ñuy lekk rek moo tax nañu dara ci sëy moo tax suñu waxtaanee toujours rek ñu ñu daanaka fa la ñuy mujjee waaw ñu seetlu ne ñi nga xam ne dañoo bëgg lekk bu niin xeetu tële yii yëpp dañ koy jàmbat ñoo ëpp ñoo ëpp bokk ci ñu koy jàmbat waaw lekk gu niin waaw waaw wala lekk wala ñi bëgg suukar lool góor gu bëgg suukar waaw góor gu suukar tamit musiba la moom tamit jafe-jafe yi mën na ko dund wala bëgg xeetu boisson yi nga xam ne dañoo am gaz ñoom tamit musiba la ndax suukar sa ci nekk baaxul xeetu boisson yooyu ba ci jus importé yi jus yi nga xam ne dañ koy indi ci réew mi rek def ko ci ay butéel di ko jaay nit ñi waaye nag ba ci ñi tox cigarette ak ñiy naan sàngara ñoom ñëpp mën nañ am jafe-jafe boobu waaw lekk gu niin moom am nañ ci ay firnde yu leer ne dafay yàq qualité man yu man yu waaw ferñeent yooyu doomi walax njaan yooyu ni yooyu di nekk ci man yu su dee yaa ngi lekk lekk bu niin lu bari rek mën na dem ba yàqu ko kon na gis ne mbokk ngeen gis nag mbokk yi ne lekk gu baax bokk na ci liy tax góor fertile maanaam am doom yomb ko yenn saa yi lekk gu bon rek mën na gàllankoor góor ak yenn xeetu dundin yi bokk na ci li nga xam ne dina tax góor fertile maanaam góor am doom yomb ko mooy di jëfandikoo tamaate lu bari tamaate ñun góor ñi dañ ko war di lekk lu bari ndax tamaate dafa am ferñeent bu ñu naan li ko pen ma nga ci biir te loolu nag bokk na ci ay njëriñam dafay dafay dafay dimbale góor ci wàllu am doom waaw dafay dafay tax góor am man yu bu baax waaye noonu noonu tamaate mu ne ko noonu la ko carotte mu ne carotte waaw carotte carotte tamit luñ digle la waaw waaye dañuy digal tamit góor muy naan ndox mu doy ndax man yu li koy composé ndox la waaw kon nag ndox mi ndox mu bëri luñ digle la waaye fruits yi tamit luñ digle la ngay faral di lekk fruits lu mel ni banaana fruits yi dañ ko digle dañ ko digal góor lu mel ni banaana ak euh, fruits yi nga xam ne dañoo am vitamine C waaw vitamine C dafay dimbale góor ci wàllu fertilité buy buyang ci buyang ci daqaar mi ngi ci yooyu nga xam ne sunu fruits réew la buy daqaar ak daqaar surtout waaye goyab orange fruits boobu ñoo kiwi papaya fraise ananas waaw ak mango waaw mango yooyu nga xam dañoo vitamine C moom bi tamit dafay dimbale góor ba mu am maniyu bu baax su dee yaa ngi koy yaa di jëfandikoo ak persil waaw persil moom di ko def infusion yenn saa yi infusion mooy nga jël ci def def ko def ko ci kaas def ci ndox mu tàng bu nuggee nga naan waaw moom tamit dafay dimbale góor luñ digal la waaw ñuy digal tamit. Euh, ñuy digle tamit res waaw ah, res lu ñu digal góor la daf koy dimbale ci wàllu am doom fertilité ak ñebbe waaw ñebbe ñebbe moom néew na la ko ci gën ñebbe waaw di faral di lekk ñebbe waaw luñ digle la kon nag gis nga ne ñuy waxtaax ci wàllu am doom rek te sauté passage bi nga xam ne mooy li ñuy digle ci wàllu lekk gu baax pour góor daanaka rek suñu waxtaan wi du am solo ndax lekk gi lu ci am solo la bokk na ci garab garab yi garab yi ci gën lekk-lekk bu baax waaw kon nag moo koy gis ngeen waxtaan waa ngoog góor dina am gàllankoor ba am doom jafe ko boobaa bu mu rëy na faju ji waaw ndax jàngoro la yàlla yàllaa ko ko teg te boo fajoo rek mën ngaa wér waaw wala góor xëy na sax amul jafe-jafe am doom waaye soxna soxna si mu nekkal euh, dese naa am satisfaction ci moom waaw soxna si daal ni mu waroon bëggee ci moom ci wàllu néeg bi des na parce que góor gi xëy na matalewu ko loolu tamit gàllankoor la wala góor tamit mën na am jafe-jafe sax yëg-yëg mu yëgatul dara waaw yooyu yëpp lu ñuy faj la kon nag gis nga du jàngoro yi nga xam ne da nga naan nit ki demal jël li jël laa del di ko di ko tegtal ay déedéet gis nga boo amee jafe-jafe yooyu nag da ngay faju waaw ñëwal ko mel ni professeur Abbas nga diis ko sa problème ci suuf waaw luñ mënul wax ci kaw la mais mën nga ma jël ci suuf nga ne ah man de wax dégg naa sa waxtaan man de jafe-jafe bi ma am mooy yor naa soxna waaye aw ma doom te xam naa ne ci man la parce que dem naa def ay. examen ay visite ñu ne ma yow la ah man nga koo traité man la a xool say kayit yi la jox nga jox ma ko ma ne la waaw gis nga traitement bi daal ñàkk am doom diggante juróom benn weer la ak un an man ci laa koy traité ci yàlla def sutur daal moom ci ci lay amee su ko yàlla tuddee nag ndax du koo koo ci traité mu wér waaw benn góor gi nga xam ne moom dafa gaaw jot boppam ci sëy daa gaaw a yëgg soo ma jëlee ma la ah man ne li ma koy traité mooy ñetti weer waaye ñetti weer garab gii laa lay jox ñetti weer li ci mujjee mooy góor gi nga xam ne moom jafe-jafe mooy amatul yëg-yëg ci wàllu sëy mu bëgg ma traité ko ma ne ah loolu mën naa ko traité ci ñaari weer kon nag nit ki moo jël engagement dama leen wax ci diir gu ma koy traité wax la ma koy traité nga jël engagement waaw waaye nag. conseil yi nga xam ne mën naa ko jox rek mooy yi nga joxe nii ci biir waxtaan wi ci wàllu yi ñuy tere yi ñuy tere mooy cigarette ak sàngara yi ci aju yooyu yëpp ñu tere la ko lekk gu bon ak lekk suukar su bëri ak lekk niin waaw yooyu moom lañ mën a joxe ak yi ñuy digle nit di ko lekk surtout góor pour mu jàppale ko waaye ku am jafe-jafe boobu nag incha allah boo ñu jëlee yàlla moo wér-wér waaye ñu jéem ci sunu kéemtalaay kattan. kon nag mbokk yi waxtaan waa ngoog eh, ñu ne rek comme que semaine ba la ñu weesu wax nañ ci jigéen ñi tey ñu ñëw ci góor ñi nag boo ko defee ñu jéem a matal waaw la ci jub nag eh, ndimbala suñu borom la rek waaw li ci dëng yëpp ak ndong bu doon nab nabi la rek waaw waaw doon nab nabi rek waaw kon nag la ci dëng yëpp ñu ngi ciy jégalu di ziar ñëpp di tuub di tuub nag bu wér ci kilifa yi ñuy yi ñuy déglu ñoom ñëpp ñu ngi ciy tuub bu wér waaw dañ doon aborder sujet bu sensible waaw dañ doon waxtaanee lu jafe waxtaanee eh, ndax boo koy waxtaanee ay kilifa di la déglu rek foog nga xool nooy waxee kon nag bu ci njuumte amee ñu ngi jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.